ses capacités intellectuelles vraiment man dama ko mais sa façon de faire de la politique aujourd'hui je man sais pas... sincèrement parler Je mu jaar ci si bi nga un homme qui la été jaar homme. quand je la vois muy dóor ay xeer ci Macky Sall je dis que ce n'est pas sérieux et moi je sais que ni moom li muy wax sax gëmu ko. li muy wax gëmul ko. pas parce que Mimi Touré dama doon gis ay nit toog di xas Macky Sall du Touré ak d'accord loo ko wax mu ne sama càmmiñ la da ci xuloo tëdd ci suuf kon donc il faut qu'on la demande de revenir à la raison troisième mandat moo ko booleeg xam la mais troisième mandat Macky Sall il avait le droit de se présenter à un troisième mandat comme on le dit parce que Mimi Touré moo celle qui avait coordonné le projet du oui et le non, le référendum. Moi, j'étais son adjoint à Grand Yoff. Ça dit, je vous parle en connaissance de cause. Quel Nathalie ou moi, J'étais le coordonnateur adjoint de Mimi en 2018. En 2016, à Safourla, quand on allait aux élections euh, euh, euh, référendaires, Metsey était son premier adjoint, moi j'étais son deuxième adjoint. Et Mimi a porté le projet en demandant les Sénégalais de voter oui parce que Macky Sall li mu bëgg liggéey ci Sénégal il fallait que nous nous accorder pour nous continuer le travail. qu'il avait Mais nee pour Amadou Ba mooy le troisième mandat Macky Sall. ah mais gis-gisam la. amoo ah, loo gëmoo loolu yow. gis-gisam la non c'est-à-dire. mais du gis-gisam parce que Amadou Ba tamit toog na. fi wax ne bu ñu ma votelee damay bàyyi Macky Sall voté Amadou Ba c'est pas gisam la mu dégg rek moom la ñëw rapporté aussi waaw à quoi ça gêne que Amadou Ba wax loolu. mais parce que faluñu kon euh, troisième mandat bu ñu demee ba fal euh, <laughs> Amadou Ba. faluñu Macky Sall Amadou Ba lañ fal ki ñu fal na yeggali ci sujet bi waaw dañ wax ne fan la waa Pastef jëlee fiche de parrainage seen numéro mooy 111.